ay waay man mos may gënta lu ne te laa leen a nettalil suma gënta ji dimba ji dama gënta yaaya jame mu ñëw seet si ma yaaya jame dugg si suma néeg rek ne ma ay muus ma ko yaaya lu xew mu ma muus jommi na ko yaaya lu waral lu ñaaw mu ma muus Adama Barrow wind na ma ma ko laa lii fi ñu koy waxee waay ma muus lii lu muus pexe laa bëgga ma ko yegg si nga may pexe ma ne ko may pexe yegg mu ne ma mos gaawe ma lan may pexe ma ne ko xanaa ñu mu ne ma rey mu ne ma luy beneen ma ne ko xanaa ñu tëj mu ne ma ay muus waral lu ñaaw ma ne ko boo xamee ñun muus la merey yaa ñun gis nañu lekk bi suur jëfe bu Adama Barrow bi ne dañoo lekka lekka lekka ba desal dépense yaa muut gaa nga tuur lekka yi rek yaa nag yow Ese vidal mo ni mi de mi a la de muy jame, Muy muy mo jome nace...